fii mu nekk nii dafa am ko fi woote woon te loolu la bëggoon ñu nekkal ko ci. Mhm. jàmm na ñooy. jërëjëf ci laaj bi am solo macha allah oustaz dañuy dem ci suñu beneen question bi. Mhm. boo xoolee fan yi euh, pro Sonko yi ak euh, pro Doudou Ka yi. am na jote bu ñu am fële ca Ziguinchor. Mhm. te boo xoolee itam euh, ci maggal bi. cérémonie officielle bi. xalif bi mu génnee wax doon na ñaax ñi nga xam ne ñoo seq wàllu politique bi mhm. ñu jéem a rafetal ci seen diggante mhm. boo xoolee ak li jot am ni jàppoon ni que ñoom dañoo xaw a tebbi euh, wala joxuñu cër la xalif boo yëkkati bés boobu noonu waa xam naa day violence euh, ci géewu politique bi lu jaramoytu moytu la mhm. ndax baaxul ci kenn ci ñoom ñaar ki opposé baaxul ci moom ki ñu opposé baaxul ci moom violence moo baaxut léegi ñaar ñi koy séq ku ci nekk su ko moytu rek mën naa ñàkkam waaye ñaar ñi koy séq li fekk ñi ngi koy jéem a incarné pour def ko rek mu ñu su ko moytu la ca tege mooy réew mi bu amee ay attekat ay juge yoo xam ne ñooy def yëf yi ñoom tam war nañ bu lu mel ni xewee ñu mën ne hee diw yow mii atooñ ak koo mën a doon nag ñaari ñaar ñëpp bu fekkee sonko la ñu ne ko yee sonko bu fekkee ne kala ñu ne ko yee ka su ko defee loolu duutu répété waat mais su fekkee ne ku ci nekk mën ngaa layal sa bopp woote wax ne man man lañ tooñ ndax nangam ak nangam kee woote ne man lañ tooñ ndax nangam ak nangam boo liggéey lu mel noonu mën naa xewaat feneen mën naa xewaat feneen rawatina nag bu fekkee sëriñ bi dugal na ci kàddoom wax ne nañ nañ nañ fexe jàmm am ci penc bi ndax lu dul jàmm-jàmm ko gën loolu loolu ko ko doon sóoraale mhm. non seulement am am nga ngërëm mhm. waaye mën nga am résultat yu baax a baax mhm. ndax moytu moytu ay jàmm rek lay jur dëgg la jërëjëf Cheikh Abdourahmane dëgg la euh, bu ñuy mujjëlee boo xoolee euh, Macky Sall fan yi dafa demoon euh, Dubaï ci benn exposition bu fa amoon exposition bi nag dara waralu ko lu dul lépp loo xam ne day jëm ci taaral ab taaru réew mhm. muy woo sénégalais itam ñu doxal euh, mbiru civisme mhm. maanaam boo xoolee civisme ci euh, comportement bu ñu war a am mhm. nañu war a doxalee waaw boo bu ñu gisee loolu itam est-ce que jàppoon ni ñoom dañuy woote noonu ci euh, sénégalais yi warut ñëw ci ñoom maanaam ci ni ñuy yoree alalu réew mi ak yi ko ñooñ waaw xam nga am réew de dëkke ko jafe na jiitu ko jafe na jiitu ko jafe na ci kaw boo demee ci sa réew yu moroom la nga fay gis war naa mën a nekk ci sam réew la nga fay gis ci wàllu cet ga ci wàllu nose ga ci wàllu discipline ba ci wàllu yooyu képp ku jiitam réew di dem ci réewu jàmbur yi boo ca fekkee lu mel noonu war nga ko mën a tibb indi ci sama réew léegi nag lu mel ni Dubaay ak ñoom seen yooyu dëgg la ay nit a fa dëkk mm-hmm. maanaam na mën a sete mm-hmm. nun la Sénégal mën a sete mais nag du ñu xëy xëy na tey set mm-hmm. gis nga dafa am loo xam ne bu fekkee senegal dakaar mooy capitale bi li ëpp ci nit ñi fi lañ dëkk kenn mënut a setal Dakar bu fekkee Dakar mooy capitale bi li ëpp ci nit ñi dëkk fi kenn mënut a te Dakar am embouteillage kenn mënu ko ah. léegi nag décentralisation yi ba ci war a am nag tasaare yëf fii mm-hmm. ministère yi génn Dakar ah, yi war a génn Dakar lépp génn dakaar mm-hmm. ñu wut ay demukaay yu su boobaa Dakar man ñi fi nga xam ne mënuñ fa ñàkk dëkk dëkk fi mm-hmm. dëkk bi dina féex dëkk yooyu féex ba noppi nag am jàmm loo ko may ñun ñëpp dañuy def exode rural ñun ñëpp ñu daw ñëw fii loolu kon ndaje yu mel noonu ko ci dem war nga caa mën a tibbee loolu indi ko ci sam réew jëf ci laaj ba am sala waaye ñoom itam war nañ xool nañuy doxalee ñoom itam ci seen wàll maanaam ci lan leen dénk. waaw ñoom ñoom ñu jiitu. Mm-hmm. ñoom dañ dul dañ dul lekk ñaari loxo. Mm-hmm. képp koo xam ne ministre nga. Mm-hmm. wala député nga baab gouverneur nga. wala sax même conseil économique nga. danañ xam. li nga am nu mu booy génn li nga am nu mu toll mm-hmm. boo tibbee ci alal réew mi mm-hmm. danañ ko nangu ci façon boo xam ne bi kenn dutu ko ñeme lool nag su fekkee dafa nekk ci keesu réew mi mm-hmm. lu ne mën nañ ko cee def oh. bu nekku ci loolu nag ci loxo lay jëb kee jël fukki milliards kee jël juróom-ñetti milliards kee jël ñun ñun fukki milliards kee jël téeméeri milliards loolu xajul ci ci ci penc mi te nit mënut a lekk milliards oh. dañ koy saax-saaxee yàq ko rek oh. léegi nag réew yooyu moom loolu amu fa loolu dëgg la waaw réew loolu moom fu ma tax ba demee fekk réew yi réew yi rafet. Mm-hmm. kenn ku nekk lañ lay jox ca yem képp. waaye doo jël yëf jàmbur. Mm-hmm. jërëjëf te njët lépp lu muy woo lu muy woo ay askanam rek war na ko njëkkee moom ci. rek waaw parce que njiit moom la ñu waxoon keroog ci discours am bu njëkk ba. Mm-hmm. ar-raa'iy laa yakzib ku nekk ci kanam nit ñi dëggul te dëggal. waaw kay Oustaz yi lañ indi woon ci laaj. Mhm. waaw macha allah kontaan nañ lool ci tontu yi. jërëjëf jërëjëf. balaa ñuy dem rek nga jox ñu ndénkaane bés bi. jërëjëf waaw. laaj laaj yi am na solo. Mhm. lu ci jub ci sunu borom la lu jibut du moom man mi mhm. ndénkaan bi mooy jàngal mu ñuy wax. wasbir ala ma yaquluun. kere bi yàlla di yónni yonent bi daf ne ko. soo demee ci nit ñi dañ la wax. nga ne yàlla muy nu ñu ne yónniwu la. bis boo mokkalee muñ ay wax lépp loo mën a defar danga ko defar waaye su fekkoon la kon la coy nga ne ko gel doo dem fenn duñ dem fenn léegi loolu mën nañ koo jël ci biir gàmm gi def ko yóbbalu gàmm gi mm-hmm. mooy muñ ay wax mm-hmm. jërëjëf ci laaj bi am sala bi macha allah kon mbokk yi ma gunge sama gan gi mm-hmm. quelques minutes ñu del saati jataay bi yàlla yàlla sàmm na sàmm leen jërë ngeen jëf jërëgeen jëf mbokk ci seetaan mi ci biir réew mi ak ci bitim réew ari pàcc yi dem na pàcc bu njëkk bi moo doonoon lu fi yénti doon wut si ilaa ma yad'u naas jot nañu indi juróomi tomb yooyu pàcc ñaar bi mooy sunu gan gi ñu dal Cheikh Abdourahmane mu indi ay laajam ñu jox jéem a tontu laaj yi ba noppi jox ko mu dénkaan boo xam ne bii xëy na tabarkàlla mën nañ ko jëriñoo ñun ñu koy joxe ak moom mi nga xam ne moom lañ koy jox ñu dese ne kon ñetteelu pàcc bi nga xam ne woy seetaan ci biir réew mi ak way seetaan ci bitim réew ñooy jokkook ñun ci téléphone bi nu ànd ko koo ci xam ne da ngay contribuer nga indi ko koo ci xam ne daa am laaj booy laaj nga laaj ko bu yombee ñu tontu ko bu jafee ñu gàntu ko tabarakallahu gaa yi daan leen bindal euh, numéro bi ci écran bi ngeen ngeen di ko gis naa leen ko fàttali ci kanam tuuti incha allah subhanahu wa taala ci ci ban numéro ngeen di mën a wootee ñu ànd ci jataay bi gannaaw bi nga xam ne 18 heures jot na ba teg 38 minutes ci jataay bi xaaj benn xaaj ñaar ñu ngi ci ñetteelu xaaj bi waaye daal mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam loolu la doon liggéey si la doon liggéey si